jàmbar la boo gisee démb ma lay wooyee daaru muxti mën a laaj jànq bi yow jànq sax moo la tane parce que jànq ji sax souvent ñu takk suuf mais nit koo xam ne yow sa àdduna jël ko toilette loo am jënd ko jënd ko lippaleef di lippaleef ah non yooyu duma ko wax sax li muy góox ak yooyu moom moom affaire am la waaye na bàyyi ci toilette ba nga xam ne yow kenn xamul looy nuróol dégg nga yooyu ngay bàyyi te nekk góor tuuti te soo àndee nguur bu daanoo nga xam ne dafa daanu lu opposé wu dégg nga waaye yow sa àdduna yépp noonga noongi topp ci pouvoir yi pouvoir bu daanu nga dem ci ba dem seen pouvoir bii la gën a daanu ko suñu bos bi doo fi dugg ndax ñun du ngeen éversé sàcc Bassirou Diomaye Faye du ànd ak sàcc li ci des koy daaneele mooy déclaré na ma nii nga fekk ma toog nga fetal doj sama oto bi nii nga jëndaloo yaa ko toj gaañ samay gone damm ci ay nit li ma doon def mi karawaan bii ma doon def mu neex ñëpp tey jii bi nii nii toog bi di wax dama heure bi waroon nañoo fekk ci liggéey bi lii nga ma def nag maa ngi lay défier baye boo loo xam ci saa yi rek bàyyi nga def parce que man danaa xeex ak yow te man yóbbu maa xeexal te maa ngi lay waatal ci alxuraanu karim Sénégal dinañu àttee ñëpp Daaru Muxti ngi fi Tuubaa ngi nawle yaa ngi naa la xam nga def ni di tuub ba jëgu dara kàpp lenn nag mën nañ mooy nga génn nga wax ne yow ab raykatu nit nga danga ñoo bëggoon a rey dangaa man di woon xawma lu la dal après ñu doog a xool lu ñuy def su dul loolu nag bay boo nga defal say bagage ta xam ne kaso ko jëm waaw léegi nag damay jox ndaw sii li may wax lépp nag dama ko doon wax parce que daf ñu tooñ dama koy wax bam leer nañ ndax xam naa ko ku ñeme yàlla la ku ñeme fab jëla pour mën a sos la xam naa dans trente minutes nga seen ko muy fonkale tuñ di yóbbu di wax lu dul dëgg waaye li ñuy wax lépp photo vidéo film ak kayit la toog li tege ndaw sii toog mi ngi nii leen ko jox moom ci boppam lañ kidnappé laata xeex bi di am moom dafa am beneen bi boppam parce que dañ ko kidnappé woon enlèvement la xam nañ lan la ci yoon wax léegi nañ leen bàyyi ndaw si moom dana leen expliqué nan la seen bi def

ak léegi innovation aada yi ñoo am nekk ci liggéey bi campagne nekk ci caravane bi di topp ci caravane fu ñu dem macha allah fu ñu dem macha allah ñëpp génn dóor yi métti na da ngeen may comprendre fu ne bu may wax sama di koy métti waaw noonu la demee daal bi mu demee ñu nekk suñu liggéey nekk suñu yoon caravane di caravane ba ñëw ak si ñu ñëwee Daaru Muxti man ci déggee tey sama yaay dafa am xaritam bu yor añam tam soxna si la ñu koy woowee soxna Sall waaw sama yaay ne ma comme yéen a ngi foofu bu leen accès ma ne ko ñun ñu daaru accès na mu ne comme accès ngeen daaru dama bëgg nga jaar sa kër soxna di par la suite dinaa laajte fan ñu ne ma koñu pharmacie bi bi ma ñëwee ci koñu pharmacie bi ma laajte ay xale yu laa fekk ñu taxaw ma ne leen xam ngeen ku ñuy wax Pape Sama Sall ñu ne ma waa kër gi la man dama dox deux mètres rek jékki-jékki dama xale bu ñëw rek ñëw leen ak naaw keneen ñëw xëcc sama brassard yi ma takkoon ñu jàpp ma kii di dóor fii kii di dóor ci noonu montagne ba rek la ñëw ànd ak ay garde corps am ñëwee daal di ma laaj na ma yow sax xam nga li nga def déli la yow waroo takk braza ah yor sa écharpe dugg ci koñ bi yow xanaa xamoo ni fii sama secteur la man na mu kuy sa tànta ma ne ko soxna sama sàll mu ne ma soxna sàll ma ne ko waaw mu ne xam nga ah, ma la bàyyee kii la rey ma ko waaw parce que commencé nañ ma dóor dama xaw ma lu xew noonu mu wane ginnaaw xale yi tur na waat ñëw di ma dóor bi ñu may dóor ñu wane ginnaaw man ko yow jànkala xam naa la bu baax te yow xam nga ne xam naa la parce que xam naa kan bi mu tourné eh, jàpp ko ren de seen affaire bi ba ful bi dem après moom ci la ñu nan jël seen oto oto bi ñu yoroon noonu di ko rabaat moom nan ko jël dugal ma ma man suñu convoi fan la nekk. ma wax leen ni damaa koy yàgg nag mu ne nan ma yóbbu mais mu ñu wax ak xale góor ne boo leen koy yóbbu boo leen demee ba ci yoon bi da ngeen di gaare oto bi jël beneen oto bu amul taf bi comme ça ngeen mun ko cee yóbbu pour ngeen bañ a am benn problème ci yoon bi léegi bu ma waxee loolu man ko problème am na ba pare parce def ngeen ma li ngeen def dóor ngeen ma gaañ ma lu nekk ne nit tël bu ne def ma ne ma soxna si man ne ma yow yaa nga tooñ parce naan da ngay seet nii takk say bagages man ko kon aw ma droit ñëw ci koñ bi seet nii ah man damay laaj rek ba xam aw ma droit ñëw ci koñ bi seet nii te ki may seet yow xam nga ko waaw ah, nii daal la affaire bi demee daal di góor ñu jël ma indi ma ba suñu côté bi ñëwee ban ne ma fan mooy seen caravane man nga nii nii ñoom tamit ñu suñu seen mbaxane yi soloon parce que bëgg ñu sol seen mbaxane yi ñu dugg ci ful bi ma ne ko solal sa mbaxane sol leen seen t-shirt ngeen dugg ñun yemuñoo ak yéen. ñooñu ñun àdduna bi neex na ko doon yëkkati loxo di ko déglu loolu ñu ci ci yéen la nekk te wane ngeen ko tey te loolu maam Paate na loolu mun na ko seede ndax bi ñu ñëwee ma taxaw ak maam Paate ne leen gis ne ñii ñoo ma indi gàllankoor koola jaañ fa rek ñoom ñoo ma jàpp doon ma dóor ful bi jàpp ma dina dóor ñoom tamit ñu ànd ci doon na ma ba seen xol seet bi doo ko tourné jaañ fa ne yóbbu leen ko waaw hôpital nag yaa jóge nii doo ñëw hôpital laay delluwaat parce que instant li ma yëg sama yaram bëri na te mënuma ko wax maa ngi tuddee jéegoon bu kàddu yi jubee ngeen xam ne rek doomu aadama fi doon wax bu dëggee tamit ngeen xam ne moom kàddu doomu aadama waaw sëñ Moussa waaw